nañu xam ni déjà ci suñu biir am na ñoo xam ni amuñu mbégte ci investiture yi dama leen di ñaan ku ci nekk moo xam mandataire la moo xam investi na dem waxtaan ak nit ñi man mani xeebuma kenn mais nag ragaluma mais xeebuma kenn bu ñu xeeb kenn nañu xam ni nous avons des adversaires loolu nañ ko sorale ñu xam ni liggéey bi tey la commencé il faut ñu xam ni war nañu dem ak ci nit ñi waxtaan ak ñoom wax leen suñu projet pour le développement de nos différentes collectivités liggéey bi des na président jàppale na mais am na loo xam ni collectivités yi ñoo ko war a liggéey donc euh, tous les ñi nga xam ni ñoo war a diriger list yi na ngeen xam ni liggéey am na bu ñu fi génnee nañu dajale njaboot d'abord tous les investis ku ci xe ku ci nekk xam lan lañ ko dénk du caageen dañ la investir nga dem toog Ndakaaru walla feneen nga ni ñeneen yi dinañ ko liggéey ñépp ñoo ci war a jàpp kenn warul des gannaaw boo génnee ci ñoo ci loolu am na ñoo xam ne ils sont pas investis il faut ñu dem ci ñoom ñépp ñoo war a dem ci ñoom du investir rek bu ñu xeeb kenn nañu xam ni liggéey bi ñoo ko war a defandoo pour mën a gagner les 17 collectivités bu keroogee le 23 du mois de janvier lu am solo la c'est pour la stabilité de notre pays te am na solo te fii Thiès gëm naa ni président Idrissa Seck bu yebalee njabootam président Macky Sall yebal njabootam ñu ànd toog ak ni mu rafetee nii gëm naa ni la victoire est presque assurée la victoire est presque assurée mooy ni ñeme nañu fi jëm mais nee leen bu ñu xeeb kenn parce que nit ñi dañuy wax dañuy yàq dañuy inventé am na ñoo xam ne loolu rek lañu mën mais nag nañu xam fi ñu taxaw nañu xam ni ñun jëmale Sénégal kanam moo ñu tax a jóg te loolu duñ ci varié donc damay ñëw di féliciter tous ceux qui sont di wax ni tous ceux qui ne sont pas investis te nga xam ni am na ñu ci mer ñu jéggal ñu mëtti de doomi aadama la mais du caageen dañoo bëgg a tordre la mais à qui que ce soit bëgguñu toroxal kenn bëgguñu ganawal kenn investiture moo mel noonu comme gouvernement président dina jël dina bàyyi mais du caageen parce que boo ko ci liste bi nga ni mer naa damay dem feneen te ragal naa boo bàyyee sa ànd dem ci beneen ànd di fa fekk ay nit te ragal naa li nga bëgg mën mën na am doo ko am donc il faut taire les na ñu bàyyi xuloo yi diw neexuma bu ñu ko tegee du ma liggéey loolu nañ ko bàyyi sa kooku du jikko politicien politicien warul gaaw mer le politicien il doit être courageux le politicien doit être déterminé mais politicien aussi war na gëm ni suñu borom defar na démb doog ñëw tey su fekkee investiture yi ak li ma ci gis investiture au niveau national ak fii nga xam ne suñu borom mooy def lépp nit dinañu wut kayitam comme kayitam nekku fa au dernier moment investir uñu ko dina mer c'est normal mais il faut ñu waxtaan ak moom expliquer ko mu xam ni ndogale suñu borom la amoon na benn ministre dañ ko waroon ñu oo ko téléphone oo oo oo kenn mënu ko jot kenn mënu ko jot il n'a jamais été ministre c'est que le président avait le, le tout puissant avait décidé que kooku du nekk ministre donc pour ngeen xam ni lépp lu ci am gu kenn yaakaar nii dañu ko tey wala dañoo bëgg a tuuteel doomi aadama nañu dem ci liggéey bi nañu waxtaan ak nit yi maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox rendez-vous très bientôt pour les élections